boo xam ne moom sa yax yi lay jàpp lu bëri sax sa yax yi moom lay jàpp boo moytu mu indi la ay handicap yu grave sax. drépanocytose forme SC ñi ñu bëri ci askan wi umpale nañ ko lu ni mel sax moom moo war a kii di Lisa Camara daanaka yéex na loolu ginnaaw bi muy xam ne moom boobule jàngoro daf ko dal di ame man nag ba très très bu yéex na trop avant may ma nee naa def kii bi test drépano bi ma def électrophorèse bi si dañ ma wax maanaam drépano SC ñu diagnostic ko ñu ne ma yaxi lay def commencé ba mënatuma dox. mu daal di am ci lu tollook ñaar fukki at ak na def ñaari yoon opération. def naa ñaari opération hanche benn maa ngi ko def daaw benn maa ngi ko def ren mais dafa métti métti ah, man demoon naa ba doxatuma. jamono ji ñu toll nag mu nekk ab commerçante bu ndaw moom Lissa Camara mu ngi sàkku ci autorité yi mu indi leen ay ndimbal ngir ñu mën a dékku boobule jàngoro. cri de cœur bi daal mooy état bi war na war na gestuwaat ñi borom drépanocytose yi parce que drépano lu muy rey dafa bëri te ñi koy souffrir fii Sénégal bëri nañ torop torop torop. mu nekk jàngoro bi nga xamante ne dañu koy donnante doonante drépanocytose nag fii ci Sénégal jàpp nañ ne lu toll ci dix pour cent ci askan wi daanaka am nañ ko ñu ni mel sax moom moo waral ñi nga xamante ne dañu am boobule jàngoro di sàkku ci nguur gi mu def a jéego asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dale nag jàmm ci seen émission SOS santé ñu am mbégte di dalal tey Magueye Ndiaye moom nag moom mooy njiital association bi ëmb ñi nga xam ne dañuy dund ak feebaru drépanocytose fii ci Sénégal ñu ngi lay nuyu Magueye Ndiaye. Euh, maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay di la jaajëfal ci sa disponibilité. ah ñun de ñoo leen di jaajëfee yéen ak seen auditeurs yëpp. Mm-hmm. bu baax a baax ci yëg-yëg bi ngeen def ba tey woo ñu sunu journée bii nga xam ne mooy journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Mhm. wax nga ko tey jii mu nekk bés bi nga xam ne ci àdduna wërngal këpp moom leenu ñu jagleel feebar bii di euh, euh, drépanocytose euh, tey jii nii journée bi tey mën nga ñëwaat ci solo si nga xamante ne am na ko. waaw journée bi tey dafa nekk journée boo xam ni solo mooy dafa. tombeek loo xam ne moo xew ci àdduna bi mooy mbas mi ñuy wooyee covid 19 ba tax na sax thème ren bi dañ ko ci tënk muy drépanocytose en pandémie covid 19 euh, solom bi tamit moom mooy loo xam ni lu fi musul am daanaka moo fi am muy journée bu toll nii ak drépano tolluwaayam ci réew mi ñu di ko def te amul benn benn benn manifestation ndax tamit euh, defe naa ne am na mesure yoo xam ni moom lañu dogal ci réew mi. Mhm. ñu nit en tant que association moom la ñuy respect mhm. respecté ba tax na euh, ren journée bi dafa particulier lool lool lool ci askan bi ci maladie waaye aussi ci àdduna bi yëpp ndax ñun ñëpp nii lañ ko taxawee fépp foo dem si nii ci àdduna bi. Mhm. voilà wax nga ko mu nekk ci jamono joo xamante ne dafa tombe ak mbas mi di corona donc festivité yi moom daanaka du am parce que. li nga xam ne moom mooy rassemblement yeeg yooyu mais. est-ce que am na beneen forme boo xam ne adopté ngeen ko pour marquer journée bi. waaw forme bi ñu adopté defe naa ne mooy ren sax dëgg la pandémie bi am na mbas mi am na waaye defe naa ne dañoo gën a euh, yokku communication bi ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. ba tax na bërki démb ba tey ñu ngi fexe ba nit ñi bàyyi xel ci lii nga xam ni euh, mooy drépanocytose ndax mbas mi dëgg la. dañ ci war ñu ñun ñëpp jàppandoo xeex ci. Mhm. waaye dañu doon tamit xeex pour que lu mu métti métti ñu xam ne tamit drépanocytose mu ngi fi. Mhm. te am na journée boo xam ni euh, kuréel gi tënk euh, euh, santé àdduna bi moom moo ko jagleel maladie te ñu nit suñu bis la ndax bis la boo xam ni benn yoon la par at dafa musa foor ci ñun. Mhm. donc moo taxoon ren noonu rek lañ ko jagleel ba dañoo gën a gën a gën a gën a yokk matuwaay yi nga xam ni mooy. communiquer waaye nag communication bi yëpp tamit euh, dañ ci ñaaxaale mbas mi nga xam ni mu ngi fi ndax kenn mënul wax te tuddoo ko. Mhm. Mhm. Ah. mu nekk lu am solo mais tey jii ñu gis ne li nga xam ne moom mooy drépanocytose ci àdduna bi booy seet mm-hmm. ci ay xayma yoo xam ne waa OMS ñoo ko joxe juróom fukk million ci ay doomu aadama am nañ ko te lu ci bëri nit ñu ñuul ñi la. tey jii mu nekk loolu chiffre boo xam ne quand même lu lu bëri na cinquante millions bëri na lool boo ko déggee sax da ngay da ngay xaw a tiit. Euh, tey ji est-ce que mën nga ñu ñëw tey ci estimation boobu noonu nga xam ne moom la ñu daal di xayma est-ce que jàpp nga ne te estimation boobu peut-être méngoo na ak li nga xam ne moo am en réalité. waaw waaw waaw estimation la boo xam ne méngoo na ndaxte man suñ ko jëlee ci ci ci Sénégal rek mm-hmm. euh, fukk yoo gis rek daanaka kenn ki am na ko te boo xoolee liy juddu par at titre répartititeur dem nañu ba daanaka ñu ngi ci mille sept cent naissances par at at mu jot. Mhm. kon xam nga nekkoon loolu. buñ population bi lu muy gën a bari rek juddu gi di fi gën a bari ndax tamit feebar la boo xam ne ba léegi sax léegi sax lañu ñu commencé di jël matuwaay di ci bàyyi xel avant ñuy dugg ci néegu sëy mais ñu bari euh, dañoo yor forme boo xam ni mayu leen fu muy manifesté woo ba bu ñuy dugg ci néegu sëy duñ koy xalaat. Mhm. te loolu yëpp ay ay ay euh, njàngat la yoo xam ni moom mooy jur drépanocytose gën a bari. Euh, forme yu métti yi tamit gën a bari parce que xëy na dañ koy estimer noonu waaye lu ci ëpp forme yu métti yi tamit mu ngi gën a bari te loolu euh, booy nekkee ci suñu consultation yi da koy xam. Mhm. léegi daanaka at mu jot ñun fii ci consultation mag yi dinañ dem ba ay. deux cent nouveaux cas at mu jot ce qui dire que ñoo tax te ñoo xam ne dañ leen di doog a ci biir consultation yi. Mm-hmm. imaginer xalaatal ñi nga xam ne tey nekkuñu ci consultation yi. te mosuñoo dem xool mm. ñu ngi tëdd seen kër euh, te xamaguñu lu leen dal ñëwaguñu kon ce qui veut dire que foofu ko tënk lu am la. Mm-hmm. lu am la xayma la boo xam ni mën nañ ko nangu surtout ñun ñu nekk ci biir ndax yenn saa sax ñu dem dépistage fenn ci àll bi mais da gis ne. léegi ñu naan fukk yoo jël kenn am na ko ci mais yenn ci sunu biir dépistage da ngay gis ni fukk yoo jël daanaka juróom yëpp am nañ ñu ngi dund moom. Mm-hmm. kon xayma boobu lu lu ñu mën a nangu la ñun nekk ci biir mbir mi eh, di ci liggéey bés bu jot. Mm-hmm. Euh, tey jii ñu ne aussi feebar la boo xam ne nit ñu ñuul yi lay gën di laal loolu quand nekk situation boo xam ne. peut-être yéen ñi nga xam ne yéen a ci nekk nekk tout le temps ak médecin yi yéen peut-être am ngeen explication ci loolu pourquoi euh, muy dal nit ñi ñuun ñi en particulier oh non xam nga loolu tamit lu lu lu ñuy faral di wax la mais gis nga gis nañ ne c'est vrai que ci lañ ko gën a bare ci lañ gën a découvrir euh, d'ailleurs foofu la cosaano waaye nag euh, ak migration bi ak léegi mariage consanguin gis nañ ne léegi drépanocytose fépp am na ci àdduna en tout cas man dëkk bu nekk dem naa fa ba Brésil mais gis naa ne fépp am na fa xëy na nag euh, amagul ci dëkk yi mel ni Japon wala yenn dëkk yi nga xam ne yeggaguma ko. Mhm. mais réunion yi nga xam dañ koy am at mu jot. Mhm. xeet yëpp daanaka nga fay fekk. Mhm. yëpp waaw ah, ba tax na dëkkal ko fenn ci benn xeet wala ci benn euh, ci ñenn ñi dafay xaw a jafe mais li leer mooy suñu liggéey yóbbu nañu ci àdduna foo xam ni euh, gis nañ ne am na fa mais aussi am na fa ay formes yu metti yoo xam ne daanaka lu ci ëpp ñu leen tax gis Sénégal. Mhm. Euh, tey jii pour revenir un peu ci association di association sénégalaise des drépanocytaires n'est-ce pas. de lutte contre la drépanocytose de lutte association bi quand même mu nekk association boo xam ne euh, taxaw na bu yàgg tey mën nga ñëw un peu ci ci bi. waaw association bi moom dañ ko sos depuis 2003. dañ mhm. koy sos tamit dañ ne parents ak malade ndax daño gisoon ne ñu doon daje ci consultation yi ñun bari na trop suñuy waajur ak yeneen waajur mhm. ñu gis ni amul fenn fuñ koy waxee benn ñaar muy loo xam ne dañ ko doon dëkkal fu ne mhm. naan feebaru pëlis la feebaru jinne la feebaru rab la ndax ñu ñu daan daanale mhm. ñett ñu gis ne docteur yi ci doon wax ñu tuuti lañu woon ñu tuuti lañu woon alors ci lañ sose association bi ci premier année yi dañ ne xam ngir xam le informer sensibiliser ñuy dem di dem di dem di wut ay projet di teg di bind di yëg ko wàcc ba nguur gi commencé ñoo bàyyi xel. Mhm. ci lañ commencé nag dugal ci dépistage mais boo ba léegi at mu jot ñu dépister mille cinq cent personnes yoo xam ni lu mu bon bon dina ci am nit yi dañu dañuy dañuy dañuy drépano mhm. sensibiliser lu mat cinq mille nit par at. donc loolu yëpp ñu koy def di ko def ko def ba fii ñu tollu si tey bokk ci kuréel yoo xam ne ay kuréel international la di dem ci ay congrès di dem ci ay réunion mm. di daje kilifa yi ba léegi ñu dem ba wutal ko bis mm-hmm. alors ñu dema dema dema dema tamit ba suñu réew Sénégal nangul ñu ko ba saa jotee ñu ngi ciy liggéey ñun di ci waxtaan ak ñun ren nag dafa am particularité ndax ministère woo nañu semaine bële nañu ah mbas mi ni mu demee tax na bi ñu mën a def benn manifestation mm. waaye ci site ministère ku fa dugg dinañ ko annoncé mm. waaye nag du tee ñun dañu jël sunu matuwaay ndax ñun ñoo feebar ndax annoncé ko rek ci site mm-hmm. doyul mm-hmm. ndax ñëpp jàpp nañ ne bis bi la dañ cee war a wax mm-hmm. même bu dee mënuñoo génn mënuñoo lajaloo ba moo waral fii ñu toll tey te jéego yu bari def nañ ko ci information communication ak ci formation parce que tey ak professeur Ibrahima Diagne dem nañ ba coopération internationale depuis ñetti at ñu ngi former infirmières yi ñu ngi eh, former yenn médecins yi gox yeeg goxaan yi ba fii ba mbumba fii ba njum boo fa demee da nga fa fekk benn yi chef de poste boo xam ne lu mu bon bon informer nañ ko sensibiliser nañ mhm. Mhm. mais ñu dem tamit ba am benn benn benn guide de prise en charge boo xam ne fépp foo dem da nga ko fa fekk pour que kenn ku ci nekk boo ñëwee dinañ xam ci niveau bi nga toll ñu dalal la parce que ki nga xam ne case case de santé la ay matuwaayam a fajam mënul bokk ki nga xam ne niveau hôpital la mais loolu yëpp dañ ko tënk ci guide de prise en charge bi mm. ba kenn ku ci nekk rek ne dana mm-hmm. euh, parce que tey jii euh, yaa ngi koy wax sànq am na ñoo xamante ne am nañu feebar bi dañoo toog seen kër te fekk ne xamuñu ko wala peut-être tey information bi nga xam ne war nañ ko ci am du nekk information bu doy moo tax euh, ci jéego yi nga xam ne OMS jël nañ ko gis naa ci ni dañu ne woon ni depuis 2006 que dañuy fexe ba li nga xam ne mooy test ML bi ñu fexe ba di ko defal xale yi à la naissance nga xam ne dañuy teel a détecté li nga xam ne moom mooy feebar bi. waaw xam nga dépistage néonatal moom. Mhm. moom la ñuy wax dépistage néonatal boo juddoo. Mhm. commencé nañ ko région de Saint-Louis depuis ñetti at. Mhm. Saint-Louis ku fa dëkk rek région bi ku fa judd rek dañ lay defal dépistage néonatal. donc loolu ay jumtuwaay la yoo xam ni euh, d'accord nañ ne. ku euh, judd rek bu fekkee consentement parent la bu fekkee parent bi d'accord na. Mhm. pour que pour que pour que ñu ñu defal la ko dañ koy def. Mhm. mais nag projet la boo xam ne du ñëpp lañ ko mën a defal parce que lu ñu mën ci wax tamit euh, dépistage néonatal dafay dafay dafay jël ay moyens. alors mhm. Pierre Fabre fondation boobu permettre lañu ñu def ko. ak collaboration ak l'UGB bu Saint-Louis ba tax na boo demee université Saint-Louis avant nga fay yegg di nga gis ne ñun am nañ foofu benn centre de prise en charge pour la drépanocytose boo xam professeur Diagne moo ko jiite képp ku judd ci région de Saint-Louis rek depuis ñetti at ñu ngay defal dépistage bi boo juddoo rek ci biir semaine bi di nga xam ndax am nga drépanocytose wala amoo ko. Mhm. loolu nag dañuy ñaan yàlla ah nguur gi suñu état dem ma dem dem ba jàpp ci ba mu gën a yaatu waaye pour le moment moom bu ñu sañoon loolu moom mooy li nekk. mais nag am na loo xam tamit am na mooy képp kuy jigéen bu wérul su bilan de grossesse am na test bi. Mm. am na test de dépistage mooy test demel bi mais électrophorèse de l'hémoglobine moom képp kuy xale juddoo région de Saint-Louis xamal ne ñu ngi la koy defal ba say waajur d'accord te boobu moom moo gën a perspicace boobu moom moo gën a efficace pour ñu mën a xam ci sey ci une semaine rek boo juddoo. ban forme de répartition nga am. yaa ngi wax problème de moyen tax na ba peut koo yaatal parce que je pense que au-delà de Saint-Louis yeneen diwaan yi aussi war nañu mën a jot ci ci loolu. Mhm. waaw waa moom moo doon sunu sunu sunu yéene. parce mhm. que ah, xam nga projet boo gis euh, contributeurs yi ñaar lañ ñu doon. mais bu fekkee état bi deful code param mhm. te xam ni bailleur bi ci biti rek la jógee moom rek moo ko gàdd. yenn saa yi day yéex ñu am ko fépp ci àdduna. Mhm. moo tax nag bi am Saint-Louis euh, nekk loo xam ni foofu rek la yem foofu rek yem donc mhm. foofu la jafe-jafe bi féete. Mhm. tey jii nii par exemple koo xamante ne de manière euh, spontanée moom jóg na bëgg a dem def yi li nga xam ne moom mooy dépistage pour euh, xool test demel bi ndax am na comme déet est-ce que loolu dina nekk lu cher walla. non non du demel bi moom cheratul quoi. seeratul waaw léegi moom perte demel bi cher. Mhm. te dëgg-dëgg te léegi fépp foo dem mun nga ko fa am. Mhm. Ah. voilà euh, ci sensibilisation bi laa bëgg ñu ñëw euh, parce que euh, côté parents yi parce que nekk na feebar boo xam ne maladie génétique la yaa ngi koy wax sànq ñaan ñoo xam ne dem nañu ba war a sëy te fekk ne ñoom ñaar ñu ngi am feebar bi xooluñu seen bopp ñu am doom ëllëg après mu am ay complications tey ji côté aussi euh, consultation prénuptiale bi est-ce que yéen a ngi euh, diriger la sensibilisation vers foofu. waaw mais xam nga information moom. Mhm. da ngay da déparé fi nga xam ni foofu la sosoo. xam nga mhm. drépanocytose du feebar benn bu dul feebaru ndono. Mhm. duñ ko wàllee. jëkkër du ko wàll jabar jabar du ko wàll jëkkër mhm. bi ñu demee ba xam ne fi fi muy sosoo la foofu lañ koy foofu dañ lañ ko dugal alors ba tax na ñooñu dañ leen di faral di informer effectivement mhm. mais nag euh, dañoo fexe ba képp ku nekk jigéen bu wérul rek mu am dépistage boo xam ni euh, ci par force la ci la bokk ci bilan de grossesse bi mais nag ñun suñu biir sensibilisation toujours dañuy xamal ni ah balaa ngeen am dugg ci néegu sëy bàyyi leen xel ci feebar bi. Mhm. Euh, mhm. daal moom nañ koy faral di def. donc femme enceinte yi ñoom am nañu euh, ci test ML yi dafa bokk ci si bilan yi leen di amal am defalal. Mhm. Euh, parce que professeur Saliou Diop ñu ngi ko ci interpellé démb mais mu ngi wax que ni prise en charge précoce bi daf ci am lu am daf ci nekk part bu am solo pour que ñu mën a teel a maîtriser feebar bi. waaw. précoce moom ci fépp bépp foo ko gis rek loolu day tax ñu mën a teel a jël matuwaay yi tax feebar bi ëllëg yenn complication dinañ ko mën a gis ndax très bonne chose am nay complication mais du malade yëpp ko am parce que kenn ko ci nekk ak waxtu bi ak euh, temps bi nga xam ne say wéyjur am nañu ko pour mën laa teel a yóbbu hôpital ba ñu teel laa mën a bàyyi xel ci sa ci sa feebar bi wala ñu teel koo gis. Mm-hmm. donc loolu moo waral euh, prise en charge précoce ñu koy ñu koy recommander. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que yaa ngi koy wax sànq mais man li ma xaw a jaaxal ci drépanocytose mooy euh, màgge yi euh, maladie génétique la donc ça veut dire que ne nit ki daf koy judduwaale nest pas. daf koy doon waaw. voilà donc mais da nga gis ñoo xamante ne mun nañu dem ba am euh, trente ans vingt ans quarante ans ba dem ba yegg benn age bi soog a xam ne sax ñoom am nañ ko parce que peut-être moment boobu la ñuy ressent la ñuy soog a ressentir peut-être douleur yi ak yooyu donc ça veut dire que ne feebar la boo xam ne mën nga dund ak moom fekk na yaa ngi as nekk asymptomatique. et bien sûr. Mm-hmm. xam nga aussi euh, euh, donn ko taxul nga nga gis signe. Mm-hmm. Euh, donc moo tax sensibilisation ak information am solo. Mhm. yenn saa di nga jàpp ne yow wér nga ci feebar bu mu munti doon fekk mu ngi sa biir. Mhm. amul benn manifestation. nga romb fu ñuy waxtaanee feebar bi nga gis si ñi xam ni yow lii nga dem hôpital ñu def ko mu dal la. Mhm. moo waral d'ailleurs que mariage yi ci dugg drépanocytaires yi bari parce que ñu ci bari dañuy jàppee ne seen bopp dara jotu leen. mais buñ sa xasee sëy ba doom juddu rek laas lay ñuy wan ne vraiment feebar baa ngi fi. mais bari na ci trop. pare na ci man gis naa koo xam ne c'est à l'âge de cinquante six ans lay doog a xam ne defal SS la. Hmm. teewul mu ngi doon dund moom correctement. SS bi ci boppam. waaw. Ah. Hmm. te SS bi moom mooy la forme la plus grave. mais waaw. Hmm. moom mooy forme bi gën a grave Sénégal. Euh, parce que dañ doon wax ni sax bu njëkk ñun dañ ko daan dégg dañ doon wax ni euh, ki nga xam ne dafa am euh, drépanocytose SS bi vingt six ans du ko dépassé donc yooyu dañ ko doon wax mais gis nañ ne léegi ak médecine bi ni mu développé yooyu quand même am na ay jéego yoo xam ne am na ci waaw non waxuma la jéego sax mais suñu suñu bi yi fi mag soixante quinze ans la ñu am fi mu ne hmm. donc yooyu moom bu njëkk ba la woon léegi médecine dafa avancé Mm-hmm. donc ay préjugé la woon yoo xam mu ngi entouré woon de réponses te loolu amatul léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà mu nekk lu am solo tey ñuy euh, am mbégte di dalal yi Ndiaye moom mooy euh, njiital association bi ëmb ñi nga xam ne ñu ngi am euh, feebaru drépanocytose fii ci Sénégal donc voilà yaa ngi doon wax sànq yi problème mu moyen tey seen association bi ak activité yi ngeen di amal sensibilisation yeeg yooyu est-ce que tey ministère. ñu ngi leen di jàppale côté moyen yi wala peut-être partenaires yi ñoom ñoo leen di jàppale seen euh, financement yeeg fonds yi euh, naka ngeen di débrouiller woo pour di mën a mën a seen i activité non fi nii moom fonds amul financement amul parce que ministère géej na bu weesoo journée mondiale donc journée mondiale da ngay def sa projet le budget mu wax la li mu mën te lu ci ëpp t-shirt la lay jox ak casquette mhm. activité yi ñuy mën a grâce à la coopération Monaco ak professeur Ibrahima Diagne mi nga xam ne ci jàpp ba ñuy am euh, financement boo xam moo ñuy permettre ñuy def ay activités de sensibilisation ay dépistage di ko def fépp ci Sénégal mais ministère moom jàppaleem yëpp journée mondiale la. Mhm. bu jotee boo defee sa projet budget mu wax la lim ci mën bu ko weesoo daanaka doo leen gisante waat ba beneen activité am. Mhm. donc sur ce plan moom y' a pas de problème sinon suñuy cotisation la ñuy dundee. téeméer téeméer yi ñaar téeméer yi lu ci waaye man def ko ci ñuy jàppalante suñu biir ndax am na ordonnance yoo xam ñoo koy jëndal suñu bopp am na hospitalisation yoo xam ñoo koy fayal suñu bopp donc noonu la ñuy fonctionner. Mm-hmm. mais du benn fu ñu bind aide wala benn montant boo xam dañ koy yëg di ko jox benn benn association. Mm-hmm. Euh, tey jii nii est-ce que am na ay xayma yoo xam ne def nañu ko pour xool un peu le nombre de cas de drépanocytose fii ci Sénégal est-ce que am na ay chiffres. non loolu moom am amul. parce mm. que ñun statistiques yi ñuy wax sax huit à dix pour cent dañoo judd fekk ko fi donc ba léegi amaatagul benn. amul renouvellement wala mise à bu ci am. amagul benn mise à jour demandé nañ ko nag ci recommandation yi ñuy demandé chaque année ci la bopp mais ba léegi amagul. Hmm. voilà ñu gis ne mm. yéen du ci ëpp tamit seen CNTS ngeen di ngeen di amalee seen prise en charge. pour pas euh, sunu fi la fajoo mag ñi. voilà mag ñi fi la fajoo. Mm-hmm. côté boobu la xale Albert Royer. d' accord d' accord xale Albert Royer mag ñi euh, CNTS. donc te ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci région yeeg yooyu comment il font nan la ñuy def. région yi tamit noonu la souvent dama koy déplorer ndax da ngay gis ñu quitté Tamba wala Ziguinchor ñëw ba fii parce que à part Dakar. Euh, Saint-Louis nga fay daj mooy professeur Diagne consultation yi ñuy def hôpital régional formé fa pédiatrie ñu fay nekk di consulter mais à part ça Louga am na le docteur Bazalo tamit formation la def avec euh, en pédiatrie mais bu ko weesoo euh, bu dee mag ñi il faut nga ñëw ba Dakar hmm. waaw. d'accord nekk na quand loo xam ne lu lu xaw metti la parce que tey par exemple ku nekk ci région yi am crise wala am dara kooku mm, dina difficile quand pour nga mën a ñëw ba ndakaaru quand même dafay difficile soxna ci te loolu ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy kaas la mm-hmm. mais imagine réew mu mel ni Sénégal ngay quitté Ziguinchor ba fii pour une consultation de référence loolu fu ñu ko teg mm-hmm. mais ban réew lañ nekk ban réew lañ nekk mm-hmm. xam ban réew lañ nekk pourquoi mënuñoo démultiplier centre de formation ak de prise en charge pour que malade mais xoolal crise de nu mu métte yax yuy ruu ko mhm. yax ñu léegi wàcc oto Ziguinchor ba fi Tamba ba fi loolu ko gën a métti quand même mhm, métti na mhm. mais non moo tax nag ñu ne des fois ministère benn instant doo comprendre lu ñuy liggéey boo demee nii lii may wax ak yow dama koy wax ñoom lu ñu lay wax ñu ne li ñu yor ci maladie dafa bari li ñu yor ci maladie dafa bari mais mais mais amul fenn foo xam ne dañ ko bind te dafa métti. Euh, tey yoo xam ne dañ koy dund. Mhm. tey ki nga xam ne pare parce que tey euh, dañu gis ne am na ay feebar yoo xam ne ñu ngi ci Sénégal mais dafa am ay programme yoo xam ne ci la ñuy tënku mais tey je pense que ay feebar yu mel ne drépanocytose war nañu mën a au moins am ay programme yoo xam ne ñoom ci la ñuy tënku itamit quand même yu bootu ci ministère. non programme moom daanaka sax programme moom soxna si. Mm. Euh, am nga programme mooy loo xam ne dañ koy voté tënk ko. Mm-hmm. képp ku ñëw jaar si. mais tey bu ñu programme kenn mënu na lii mooy programme. Mm-hmm. franchement parler. am na organisation la buy dawal di yëge ko wàcc di jubbanti am nañ point focal. Mm-hmm. mais nag ministre bu ñëw ak say priorité parce que amoon nañ fi ñu si yoo xam ne neexul ba neexul mais mois bu jot ñu recevoir ñu. at mu jot ñu gis ñu pour laaj ñu di ñu jàppale di ñu fekk si ci luñ def mais aussi ministère bu nekk ak orientation xëy na peut-être ñu fi nekk ñu ngi ciy def ay jéego mais peut-être moyens yi ñu am moo leen permettre ñu mu gën see xuus mais une chose de sûre moom mooy ah man de fii ma toog yow cinq ans ngi nii recevoir ministre ministre de la santé recevoir ma. Mm-hmm. donc mënul xam lu xew. Mm-hmm. même yenn collaborateurs yi boo leen invité ci yenn formation yi wala yenn activités sax dañ naan la amuñu Donc, c'est un peu hmm. complexe. xaw na doy waax voilà donc ba tey rek ñuy waxtaan tey ci euh, li nga xam ne moom mooy drépanocytose ci journée mondiale bi nu ko jagleel euh, ci àdduna bi euh, tey jii nii la fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin. dañuy wéyandi rek ba tey seen émission SOS santé ñuy daal di wax rek ni nag ci wàllu feebaru drépanocytose ñoom ca centre national de transfusion sanguine la fajoo ki nga xam ne moom mooy professeur Saliou Diop daal jiite centre bi moom mu ngi ñëw ci li nga xam ne moom mooy feebar bi ak li nga xamante ne moo si ay jafe-jafe ñu teelu ko dellu si ci waxtaan bi. waaw drépanocytose feebar la boo xam ni feebar bu ñuy donn la. boo xam ni day euh, jàpp sunu euh, benn partie deret mooy tumbu deret yu xonq yi. ñi nga xam ni ñoom ñoo war a jël oxygène bi euh, war ko tamit jàllale ci sunu biir yaram yëpp. ci drépanocytose nag pepp pepp deret yu xonq yooyu ñuy wooye globules rouges ñuy bindoo moo changé donc bu loolu arrivé nag ñoom dañuy nekk bi dafay xaw a way ni mu war di circuler nu mu war di lawee ci biir silitu ba di transporter oxygène bi nga xam ni suñu yaram daf koy soxla law law boobu nag day wàññeeku loolu moo tax euh, feebar bi euh, li ñu mun a résumer mooy que oxygène buy manqué la ci biir yaram bi yépp waaw feebar la boo xam ni bu fekkee ni identifier nañ ko ci xale yi ñu commencé nekk tout tout tout la ñu commencé di leen war a suivre hôpital suivi boobu nag lu am am solo la mooy suivi boobu ñu def ci xale yi ndax infection yoo xam ne dafay metti souvent bu ñu leen diagnostiqué ci tàngaw xale lañ leen di commencé defal vaccination yi war yëpp dinañ leen sax defal yeneen façon vaccination yoo xam ni dina leen gën a aar yenn doomu jàngoro yi donc dañu am trop trop euh, yomb ci ñoom ñu am ay infection loolu moo tax euh, prise en charge ci xale bi mu tuuti tuuti lu am solo la ndax seetlu nañ daal ci juróomi ba bu muy am juróomi ak euh, xale yi ciy faatu yu bëri infection yi ñoom ñoo leen di prise en ñuy faj yi faj yax yi metti yi wala ay transfusion sanguine ñu leen di yokkal deret parce que dañuy dañuy ñàkk ñàkk deret waaw feebaru ndonu la moom loolu li muy euh, mooy que euh, seetlu nañu euh, ni globules rouges yu déformé yooyu loolu moom la ñu tuddee hémoglobine S li tax muy déformé wu hémoglobine S la hémoglobine S nag li koy joxe bu fekkee ni nit ki daf ko doon rek kenn ci waajuram moom AS lay nekk wante bu fekkee ñaari AS dem nañu ba am doom mën nañoo am lu ñuy tuddee SS SS nag moom euh, moom daf koy dafay nekk feebar boo xam ni day day metti ci moom ndax oxygène bi ni muy war di doxe ci biir yaram bi dafay wàññeeku donc euh, mettitu yax moom lay ak yax yi di ruux di metti moom moom lay gën a màndargoo feebar bi euh, ay metti la yoo xam ni di bi muy commencé am juróom-benn weer ba benn at ci la commencé di am metti boobu metti la yoo xam ni day ñëw tey bu toogee ñaari fan metti bi arrêté mais bu ñu toogaatee benn ñaari weer ku mu dellu si wat donc métti la yoo xam day day ñëw di dem di ñëw di ñëw di dema bokk ci métti bi tamit boole na ci fan day day ñàkk deret day xaw a xiibon boo xoolee day xaw a weex sax boo xoolee biir bëteeg yooyu dañuy day weex ndax façon deret bi nga xam ni daf soxla du du du ko du ko matale euh, dina tam am yeneen euh, mandarga lu ay infection euh, ak tamit yenn organes yi nga xam ni muy yax yi muy yooyu yëpp malheureusement mun dem ba ñàkk oxygène ak ñàkk deret boobu dem ba ko yàq donc feebar na boo xam ni daal yoon euh, heureusement am na ay suivi maintenant wante doo ko suivre bu baax euh, conséquences dafay xaw a métti lool ci ki ñi koy ñi koy euh, jàmbat. ba tey rek ñuy wëyandi ci prise en charge bi ak garab yi tey ji est-ce que tey facilité am na ci par rapport ak accès. médicament yi nga xam ne ñoom ñooy calmer crise de drépanocytose. waaw xam nga drépanocytose dafa am ay médicaments yu ñuy utiliser mooy anti inflammatoire antalgique pour calmer douleur ak fer amul benn financement bu ci am kuñ ko bindal da ngay dem pharmacie association bi nag day faral di ko di ko jënd am pagaay mhm. di ko redistribuer maladie parce que position yi la man xëy na tey am naa liggéey naa am naa lu ma jëndee garab keneen ak keneen surtout que centre hospitalier hospitalier bi ma nekk dañuy recevoir répartiteur yu bëri mais bu ko weesoo amul financement boo xam ni dañ ne ah lii kat teg nañ ko ci charte réew mi wala teg nañ ko ci loxo pharmacien yi ba ku yor ordonnance boo ñëwee ñu wàññi la fukki dërëm moo la juróom amul c'est ça le problème avec la drépanocytose amul benn benn benn préoccupation euh, ministérielle étatique boo xam ni tax na drépanocytose war cee mën a sukkandiku et ça c'est extrêmement difficile est-ce que tey côté disponibilité bi di ngeen dem rek am facilité pour trouver déjà médicaments yi à la pharmacie. loolu mooy suñu chance. Mhm. préparer garab bu ñu ko bindal bu demee pharmacie am na ko. d'accord. loolu mooy suñu at mais bu ko weesoo amul fenn fu ñu koy wàññi à association bi am ko wàññil la ko may la ko sax mais sinon amul leneen. Mhm. wala yenn médecins yi nga xam ne suñuy partenaire lañ yenn saa dañ lay bindal garab ñoom ñu am ko may la ko parce que ñooñu jàppale. te bu du woon ñoom personnel de santé bi association drépano dina gën a métti parce que ñoom ñu ci jàppale ci orientation yi ci communication mais aussi ci entre entraide bi mhm. sincèrement parler mhm. euh, ñu ñuy fàttali ne surtout loo xam ne euh, feebaru deret la Euh, CNTS bi ngeen nekk euh, bi di di fa amal prise en charge centre national de transfusion sanguine gis nañu ñoom itam ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe euh, ci ci jamono yi ak ñàkkum deret beeg yooyu rupture kii banque de sang yi nga xamante ne vraiment ce ne pas trop ça askan wi daal ñu mel ni dese nañu encore yeewu ci wàllu maye deret. waaw xam nga nag synthèse dafa am benn particularité mooy dañu am njiit mu sensible. Mhm. nga may wax problème bu sensible. Mhm. te man sanctionné ma dafa yomb parce que à part sama président personnel de santé la ba tax na du ma ci bëgg sori. Mhm. sincèrement parler je sais que problème bu amee ci ci don de lépp lu ma ci mun ci xamit je préfère denc ko. Mhm. parce que fii may wax ak yow association laa yor. Mhm. mais defe naa ne boo leen ñëwee ci directeur bi ak yi ñooñam dinañ leen ci wax leneen mais li am ba am mooy euh, yi ñu ngi fii ñu ngi lëkkaloo centre bi. ñu ngi def ay jéego ñu ngi ñuy permettre ñuy am yenn réduction cinquante pour cent yi ak service social bi fi nekk nu koy sant lool ak service sociale bu Albert Royer mm-hmm. mais li jëm seen wàllu liggéey en tant que Euh, don de sang yooyu man mënuma cee wax parce que boobaa taxawaayu personnel de santé laay wax te du lépp te autorisé wuñ ma. Mm. ma wax au nom du centre de transfusion. Mm, non non c' est plus en fait bon c' plus pour peut ñaax askan wi euh, message pour que ñuy gën a bàyyi xel ci que ne deret am na ñu ko soxla pour ñu gën a dem di maye. loolu xam nga man li ma la mën a wax ci mm. cadre boobu mooy deret parasitaire day soxla toujours transfusion. Mm-hmm. te ñun saa yu communication d' na benn thème benn année journée mondiale boo xam ni. dañoo def un don de sang pour sauver un drapeau voilà jafe-jafe am na ndax banque de sang yi gis nañ ko. Mhm. amul dara muy fii muy région yi yeneen ak yeneen manqué na ba tax na toujours ñun dañuy ñëw di jàppale ci communication bi ndax saa ñu wootee collecte rek man sama bopp maa ngi fa di gën a informer di sensibiliser di orienter nit ñi. parce que mhm. sang bi ñu muy jëriñ dafa bari weesu rawatina ak drapeau yi. Mhm. ñun nous sommes les plus grands consommateurs de sap. Mhm. moo tax toujours ñu nit suñuy message dañ ci bàyyi toujours loolu banque nañ ko ba dëkk bu ñu dem dañuy visiter banque de sang bi dem naa fi ba Burkina. Mhm. di visiter banque de sang bi di xool période. Mhm. Euh, période yi nga xam ni dafay xaw a délicat muy période koor ci dëkk bi ñu mel ni dem naa fi ba Maroc nga xam ne ay pays musulman lañ bu weeru koor jotee nu ñuy def te loolu yëpp saa yi ma ñëwee dama ci waxtaan ak directeur bi xelal ko. ñu xool nag ñoom ñu ngi koy doxalee mais ñun xamal ne ñu ngi jàpp toujours ci liggéey bi ci sensibilisation bi mm. pour que deret am parce que su ñàkkee ñun dañuy ñàkk mm. neexul ba neexul mais bu amul mm. dañuy dañuy sonn trop ndax euh, cinquante pour cent deret yi dañ leen di transfuser mm-hmm. ndax dañuy am ay anémie bañ nañ ko ba deret panafricains maladie anémique lañ koy définir mm-hmm. voilà mu dafa nekk ci particularité yi euh, te jii aussi ci euh, wàllu prise en charge bi peut-être ñu ñëw un peu ci li nga xam ne moom mooy Euh, côté euh, voilà mën nga ma ne peut-être que médecins yi ñoo ci gën a mën a euh, wax mais quand ak yow sa expérience ci feebar beeg yooyu tey ki nga xam ne mu ngi ñuy déglu ci émission bi. tey yan signe la yoo xamante ne mën nga ñu wax ni tey euh, bu ko commencé gis yenn mandarga yi war na mën a jàpp ne ah lii de peut-être mën na nekk drépanocytose. waaw waaw déjà drépanocytose feebar la boo xam ne buy feeñ nit. souvent entre trois mois six mois vers un an lay feeñ te loolu dafa di loo xam dañ ko war a noté alors souvent buy feeñ da ngay gis nit ki xale bi da ngay gis euh, tënk yi dafay néew man nag li may wax ci dafa xaw a xóot mm-hmm. mooy loxo yi tànk yi day sadd mm-hmm. alors sadd sadd boobu yenn saa yi day disparaître mais day ànd ak douleur douleur bu tar boo xam ni euh, da gis xale bi day jooy rek yenn taay bët yi xaw a zone tuuti mais day disparaître bu disparaître nag ah boo ci bàyyiwul xel dem day ñëwaat te bu ñëwaatee lu ci ëpp day ànd ak métit boo xam ni il faut ala kulli àll nga dem donc signe yooyu lu ci ëpp mooy neewi neewi bi bët ci jaune yi alors étape boobu bu ko passé ba bàyyiwoo ci xel ba nga dem hmm, bu ñëwaatee. da ngay gis mu nekk koo xam ni day jooy métit yu du jeex alors loolu ay signe yenn saa yi nag du feeñ wala bu feeñee day disparaître ci xale bi ba mu nekk mag mais diggante bi muy màggee da ngay gis muy euh, foo ko fekk day jàmbat day jàmbat ay tànk yu métti di wax man sama tànk day métti yenn saa yi bët yi bët yi bët yi day jaune yooyu mais du koy tëral parce que am na drépanocytaires yoo xam ne c'est des drépanocytaires SS yoo xam ne sama genre yi xool ba xam ni ay drépanocytaires lañ. Mhm. ay drépanocytaires lañ. donc ñooñu tant que yegguñu ci situation de complication munoo xam ni drépanocytaires lañ. Mhm. malgré ça parce que li waral tey mën na la jox la exemple kooku amoon cinquante six ans doog a découvrir ban forme la. oui mais parce que musul gis lu ko ci jaaxal. Mhm. waaw mais nag yenn saay loolu du li gën parce que bu ñu commencé traitement bi yenn yi da dem ba gis ne am na complication ndax boo gisee ñu joxe rendez-vous yi du pour ay consultation rek mais c'est pour jël matuwaay yi nga xam ne ëllëg bu bu complication war am ci feebar bi dinañ ko aar dinañ koo fànq mais fii ñi nga xam ne moo ëpp moom la ñu gis mooy bëti jaune neewi neewi tànk yi wala loxo yi jooy yu métti taw mi tamit day jour lool mm. te day faral di dem di ñëw ci xale bu dee mag nag foo ko fekk day jàmb li ñuy woowee xibon bu tey mu tëdd bu subaa mu jug day xaw a tayal du mën ni moroomam yi mën loolu moom lu ci ëpp damay wax way jur yi parents kilifa yi ku ko ci gis rek lu ci ëpp dawal hôpital mm. waaw mm-hmm. am na solo vraiment loolu pour nit ñi xam ko pour que parce que mm-hmm. lu ci bëri ñàkk xam moom moo si yóbbee nit ki parce que je pense que nit ku ne sa wérgu yaram soxal na la te boo toogee mm-hmm. ak feebar rek euh, demoo faji ko daa fekk ne xamoo ko wala peut-être amoo ci pexe voilà donc c'est important côté sensibilisation ñu leen di gën a expliquer li nga xam ne moom mooy màndarga yi effectivement parce que ñu bëri xamuñu ko ah mm-hmm. fii may wax yow ba léegi am na ci cas yoo xam ne ñun xamuñu leen de. Mm-hmm. man loolu lu ma leer la ñu ngi dund mais xamuñu ne sax drépanocytose nii lay mel te temps li ñuy jàmbat yëpp ay signam la waaw yenn saa nag ñu romb fu ñuy waxtaanee drépanocytose ñu daal di ah pourtant de sama doom bi lool la lool lool la amoon mais malheureusement day fekk yenn saa mu yéex. Mm-hmm. dañuy faral di wax ne aussi ku am drépano ñi am drépanocytose euh, période sedd lañuy gën a sonn. waaw am na ci. Mhm. am na ci parce que tamit da ngay xam ne euh, drépanocytose dafa bari ay particularité mhm. am na ci ñoo xam bu tàngee la ñuy sonn lool am na ñoo xam bu tëddee. parce que man fii may wax yow damay faral di dem France bu bari mais du ma sonal alors que yenn saa yi nga dem Tamba fa fekk fa tàngaay boo xam ne da ngay étouffé. da ngay mhm. mais loolu yëpp tamit ci ci organisme la. ça dépend ci nit ki waaw. d' accord parce que bon dama daan faral di ak sedd beeg yàq yeeg yooyu. donc moom mooy tax euh, ci période boobu ñuy gën a mais bon voilà ma ne comme li nga expliqué ni donc ça veut que ne ça dépend ci nit ki ku nekk ak sa organisme ni muy réagir. ku nekk ak ni ngay réagir. Hmm. ku nekk ak ni ngay réagir vraiment euh, traite cancer yi boo nekkee thème bi da nga xam ne dafa am ay particularité hmm. yaa naa ñoo xam boo leen jàkk rek xam ne ay traite cancer hmm. franchement xam ne ay xiibon dëgg la mais am na ñoo xam mën nga def ak ñoom cent vingt quatre xam am te dañ doon wax dépense te du fay. man mm. damay damay dem fii ba Kenya ci avion. je fais deux jours de vol en altitude mais <laughs> donc loolu yëpp dafa am ci feebar yëpp mais rawatina ci drépano te ñun yenn taay da ngay présenté wu ne drépano SS nga nit ñi dañ lay reetaan parce que duñ ko gëm ndax tàmm ñoo gis ñu mel noonu. Mm. waaye biñ fi demee Jamaïque gis nañ fi koo xam ne mu ngi doon fêté quatre-vingt-quinzième anniversaire am. te loolu nit ku normal sax dafa jafe léegi gis waxatuma la koo xam ne drépano SS la. Mm-hmm. mais loolu yëpp yoo xam ni lu am la. ça dépend te feebar la boo xam ne aussi c'est chronique boo xasee ba am ko jeex na. boo xam day juddoog yow. Mhm. bu boo xasee juddoog moom moom ngay deewaale <laughs> lu may faral di wax nit ñi la mu jaaxal leen mais du du deñ. Mhm. du deñ da juddoog moom <laughs> deewaaleeg moom amul ci yow amul ci yow du la dab. Mhm. du la mus a dab te loolu tamit dañ ko war a leeral te du jéggaani yenn saa nga gis ku ne moo sama papa amu ko sama yaay amu ko sama maama ko dépendance ci ñaari way jur yi nga ko jëlee wala kenn ci way jur yi kenn du ko jéggaani. Hmm. c'est important. Hmm. parce que moom xaw na nuroog un peu ay euh, daal mandarga bon du ma ne mandarga peut-être ak hémophilie dañu xaw am ay ressemblance waa waa dañoo dañoo dañoo bokk nekk ñoom ñëpp maladie du sang. Hmm. ñoom ñëpp ay maladie du moom mooy seen particularité ñëpp ay maladie sang la. mais nag ku nekk ak sa sa fa nga koy jëlee ndax hémophilie defe naa ci jigéen lay jóge mais du dal jigéen góor rek lay loolu moo ci xaw a alors que drépanocytaire moom du jéggaani ko moom dafa sës rek ci ndey ak ci baay wala ci baay kese wala ci ndey kese te tey ki nga xamante ne AS la euh, bu sëyee ak ku nekk ñaari AS maanaam bu ñu sëyee moom moo mën a jur. jur SS. SS mooy mooy mooy forme malade. d'accord. d'accord mais ñi nga xam ne hmm. ñoom AS lañ ñoom en général euh, peut-être de temps en temps la ñuy am un peu de problème mais lu ci bëri dañuy nekk en bonne santé. waaw c'est des ah, ay ay formes tamit yu différence la am na ay ay a asymptomatique ñoo xam ni dañoo am les mêmes préoccupations que SSI hmm. alors que am na ñoo xam ils se bien mais dans la politique de prise en nationale. on ne peut pas considérer les AS comme des personnes malades c'est ça le problème euh, AS dañ koy jooy hmm. c'est-à-dire matuwaay yi nga xam dañ koy jël dañ leen daal bon pas beddi mais euh, ni ñu fi ñu teg ak matuwaay yi ñu mën a jël ci ñoom mënuñu koo jël ci ci ci AS yi hmm, ay jafe yoo xam ñoom dañ koy paral di kaas hmm. toujours ndax euh, gis nañ ne ñoom comportement ak li ñu mën peut-être yi mënu ko mais jamono ngi changé ba gis nañ ne léegi am na yenn type d' infection yoo xam da koy gis sax ci SS di ko fekk ci AS yi. Mhm. li des ci émission bi bariwul màgge yi dañuy revenir un peu ci euh, coronavirus bi ah, gis nañ ne actuellement tous les regards sont tournés vers cette maladie te pourtant ñi euh, ñaa ngi koy euh, wax am na yeneen maladie yoo xam ne yu gën a metti foofu yoo xam ne. li muy sonal nit ñi euh, daanaka euh, metti na loolu yi tamit lu yàlla xam doy na euh, tey ci cadre de drépanocytose bi est-ce que benn moment aussi yéen sentiroo leen peut-être comme ñi ko peut-être yeneen maladies d'autres maladies di ko sentiree un peu délaissé en faveur de coronavirus bi. non coronavirus bi moom ce qu'on demande c'est que mu jóge fi. Mm-hmm. parce que quoi qu'on euh, tout est peut-être mis entre parenthèses à cause du corona. Et c'est tout à fait normal, peut-être progression moo doy mhm. Et ça, on le comprend. mais nag moo tax journée yi ñu noon a tenu à faire des communication pour que ñu xam ni mbir mi lu ci nekk nekk nekk nekk nekk ah drépanocytose mu ngi fi te il faut ci xel donc euh, loolu moom lu moo tax du ñu ŋaañi daal ndax fi mu mi dafa laaj mobilisation pour Euh, xeex bi pour corona ñëpp ci war a sumb te ñun drépano it bugguñu ñu beddi ñu teg ni ñun dugguñu pour xeex ko ndax dañ ciy jàpp ndax gis nañ effort yi ministère di def euh, yi état bi di def mais nag du tee dinañ leen xamal ne ñaan nañ yàlla corona jóge si mais drépano xam nañ ni du fi musa jóg ba tax na ñun euh, duñu ci mën a sori noonu li leer ba leer moom mooy ne est de tout avec ñi nga xam ne ñu ngi ko yore ñu leen di ñaanal parce que am na ay ay ñoo xam ne da ngeen xam ñu amee ko Mm-hmm. mais aussi en Europe moi je connais beaucoup de drépanocytaires yoo xam ne ay ay ay kii lañ corona la ñu amee. Mm-hmm. Hmm? donc du coup euh, ñooñu il faut nga sympathiser ànd ak ñoom ñaanal leen. Mm-hmm. mais nag euh, sentir nañ du sentir sax ne délaissé nañ mais jàpp nañ ne xëy na bu luy jeexee ah dinañ delluwaat. affaire yi dina revenir waaw dina en homme parce que euh, déjà manifestation bu mel nii musul am te daaw heure bi ñu ngi ngu. te lu mu bon bon euh, le directeur de la santé euh, euh, le docteur Boubacar Gueye mu ngi fa woon te dafa bàyyi woon activité mi yëpp directrice Albert waaye mu ngi fa woon dafa bàyyi woon activité mi yëpp autorité Mbour yëpp a ngi fa woon mooy médecin chef de région yeeg ñëpp kon lii bu ñu demee ba tey gisuñu kenn manifesté wuñ ko nen ah dañuy muñ rek xam ne corona moo ko waral tey ñaan yàlla de déwén heure bi mu gën fee neex mhm. mais bon comme que c'est national qui demande vraiment la force de tous ñun on ne fait que adhérer à cette cause ñaan aussi mu jóge fi loolu mm, euh, rek euh, euh, coronavirus dafa am aussi yoo ay comorbidité yu ci am ay feebar yoo xam ne bu ci bu bu fekkante rek moom si la lu ci bëri dem ay cas ak yooyu te est-ce bokk na ci comorbidité yi ci ci corona bi waaw waaw defe naa cité ko ah. mhm. ñun ñun moom ñëpp loolu moom cité nañ ko loolu moom tout le monde est d'accord là-dessus mhm. ñu amoon mbégte di dalal tey kon Magaye Ndiaye di njiital association bi ëmb ñi dund ak feebar bii di drépanocytose mbokk yi dañ leen di dig daje samedi vendredi bi di ñëw incha ci beneen numéro ci seen émission SOS santé jërë ngeen jëf.